Il y a si policiers, il y a des policiers ici pour, pour, pour, pour ça, non Mais pourquoi vous voulez nous ficher du Bogodjolé, du Bogodjolé, du matin soir, Bogodjolé, Bogodjolé Mais Bogodjolé, il finit le il fait d'off, man. What's up, man Vous nous fichez, hein Arrêtez-vous. je suis d'accord am na ñoo xamante ni dañu leen di violer ça je suis d'accord mais buñ la violer wee ñun mënuñu ci dara lu dul wax ju bëri wax ju bëri kase lañ ci mën. ñen ñoo ci mën dara police moo si mën dara dem leen police ngeen wax ni que dañu leen a violé ñu def seen liggéey mais dëkk boo xam ne ñoo ngi wër kilo ceeb bu ñu togg ñoo ngi wër fayum location wala patati patata yéen ngeen bëgg ñu si tegal ay viol viol viol tax ngeen ba xale góor yépp daw kenn ñemeetul amatuñu benn mbaraan bu baax ndax lan non dañ koy wax te dee location wala patati patata yéen ngeen bëgg si tegal ay viol viol viol tax ngeen ba xale góor yépp daw kenn ñemeetul amatuñu benn mbaraan bu baax ndax la koy wax te dee amatuñu benn mbaraan bu baax ndax koo fiy doxaan da dangay d'accord ak moom wii mu ne la wii ngeen signé pour dem bogo jolle ngeen bogo ba mu neex leen mu toog ba banque ba mu toog ba jaaxle daal dina la lan wee dañ maa violé dañ maa fii dañ maa bogo jolle te bëgguma ko woon mais vous nous fichez arrêté leen viol viol viol caga jaa ngi si dëkk bi am pagaay caga ji fan lañ commencé wi deux mille cinq cent kañ am na ñu ñuy violé mais am na ñoo xam ne. ngeen bàyyante wala dara wala takk jabar wala nga dig ko wala ay kër oto defuloo ko xale ba xëy ne danga maa violé am na ñu ñuy am na ñoo xam ne ñoom ñooy violé seen bopp ñoom dañuy judd rek violé seen bopp. avec tout ça ngeen di góor bu baax amatul wii diw daf ma foowee bàyyi ma boo boo demee ba jaaxle rek daal di yenn yëf yi nag wooy diwa ma violé nga bëgg a yàq viwu nit ki carrément mais respecté leen nit ñi yéen tamit kooba yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk nag def xaw ma association la màggetum kooba gi je ne sais pas quoi là yéen ñu boga leen ñun ñu xam ñi leen di bogo yéen ñu bogaleen bogo ba seeni ween da ngeen dem defaraat ko bëgg ñu sonal bëgg ñu gëmloo wees wi ci ci wata bëgg a wane ni yéen ay sent ngeen seent lëfal ndayam fii kenn sentu fi ñun ñëpp a nga jaale ndax léegi ñi ngi dégg suñu yaay Thiaba Thiès yaa ngi ci aar bi génn nii am na commencement mais kenn xamul fu muy teeree ñaaf dañ maa fii dañ maa te bëgguma ko woon mais vous arrêté leen viol viol viol caga jaa ngi ci dëkk bi am pagaay caga ji fan lañ commencé wi deux mille cinq cent trois mille jëm kaw am na ay caga ay million tànn sa bu la neex la waaye yor sa bangaraa di wër xale bu ndaw boo ko soos pour lan tamit boo sentiree sa bopp ba nga yëg sa bopp dangay dem nga xool benn màggetum kooba bu la saf wala xale bu ndaw xale laan deux mille kooba bu la saf wala xale bu ndaw xale laan 2000 yaa ngi fi ku la fi gën a xam góor nga ne ma kële la fii ñéppay bogo joole mais ngeen bañ ñi nga xamante ne ñoom nee nañ du ñu bogo ngeen tegee leen nee bogo yëfi nit la dafa bokk ci ci société bi dafa bokk ci viwu nit ki mais nag di leen ko def ci yoon téye leen seeni bangaraa bàyyi xale yi ngeen di violé dàq gaay yépp da ngay gis balaa ma de ñu naan wii exemple footballeur yi du ñu takk xale sénégalaises yi dañuy fi naan ñu ko dem takk ji tubaab mais noo leen di def ba du ñu takk tubaab xale boo fi nekkal génn tëjoo moom ci néeg def lu leen saf boo xëyee bis ñaanuma ko yàlla ngeen bàyyante wala dara wala nga takk jabar wala nga dig ko million wala ay kër wala oto defuloo ko xale ba xëy ne danga maa violé mais viol ba kañ am na ñu ñuy violé mais am na ñoo xam ngeen bàyyante wala dara wala nga takk jabar wala nga dig ko million wala ay kër wala oto defuloo ko xale ba xëy ne danga maa violé mais viol ba kañ am na ñu ñuy violé mais am na ñoo xam ne ñoom ñooy violé seen bopp ñoom dañuy juddu rek violé seen bopp avec tous à ngeen bu baax amatul wii diw daf maa foowee bàyyi. Aïssatou Penda Diop la voyante du peuple le mythe de sa génération borom gis-gis bu sori baa ngi nii Aïssatou Penda Diop dafay seet ci pettaaw seet ci kurus set ci alxuraan ba ci sax jàkkaarloog yow mbaa ci téléphone lu la neex mu daal di la ciy seetal yow mi amee jafe-jafe ci wàllu mystique def def nekk ci yow da nga amee cat rab sonal la da nga bëgg a sëyi da nga bëgg am ay këyit papier yu leer naññ ba nga génn sa wërsëg ubbiku dañu laa tëj dañu laa yàqal lépp lu la jaaxal ci sa àdduna jokkool ak Aysatu Penda Diop ma nga ca Géejawaay golf en face cité Alioune Sow ci croisement Béthio 77 376 31 52 Aysatu Penda Diop nee naa la am na ay bague mystique yu doy waar am na yeneen i càngat yoo xam ne boo ko xasee ba sangoo jaratul ngay dem fenn kooku mooy Aysatu Penda Diop la voyante du peuple dal leen ak jàmm ci cabine médicale Serigne Abdoul Ahad Mbacke Kéemaan borom produit yu efficace te baax yaa ngi nii mani la jigéen ñi bëgg a yokk seen fees am nañ fa vite fait vite fait bi mani la lu baax la te efficace amul benn effet secondaire mani la beneen poudre bi nag nga xam ne huile la produit huile boobule kaay leen gën jël si ko mu yokkal leen seen awra yéen jigéen ñi ana góor gu ci bëgg a yëg boppam am nañu liquide puissance bi nga xam ne dafay éliminer impuissance dindi ko ba mu set ci yow poudre bi nag moo ma dàqalat yi ma ne la frotté baa ngi nii nga xam ne dafay yokk awra góor ci ni nga ko gën a bëggee suñuy produit nag amul benn effet secondaire te itamit nag lu ñu gëstu la jaare ko ci ay laboratoire ba ñu certifié ko ñu soog koo mën a jëfandikoo ma ne la woo leen ñu gaaw yéen ñi soxla ci le produit ci 77 086 27 29 wala nga def 76 635 54 30 wala sax nga fekk ñu nor Faar ci wetu Brioche Dorée bu Nord Foire yi sorewuñ wuñ foofu lépp lu waaye bëgg bu accès ba ci Serigne Abdoul Ahad Mbacke Kéemaan daa ko fa fekk mbokki Touba ak li ko wër dal leen ak jàmm ci Serigne Bassirou Ahmadou di fajkatu cosaan ak aada tey jàppale askan wi moom Serigne Bassirou Ahmadou di faj yi la ñuy bëgg a tudd ak yi mel ni moom képp ku tële jàpp te yi ñuy bëgg a tudd sabab ko moo xam fawe sa bopp la wala jabet wala tension wala émurit wala ndoxum siti yii bu la tële dabee tamu sabab ko daf koy faj ci kàttanu yàlla bu dee da ngaa néew kàttan bi lay def boo yeewu suba teel di yëg sa bopp même boo nekkee ci sa biir wanag di yëg sa soxna dootoo yëg sa bopp lépp sedd guy nga foog ni liggéey moo la jàpp wala dañu laa takk xale fekk ne yoo néew kàttan ci boppam mooy li ko sabab yii bu la gaaree nga jox ko sëriñ Basiru Ahmadu mu saafara la ko ci kàttanu yàlla yéen ñi amee rhumatisme ba ci tànk yu metti rawatina ci jamonoy sedd kile di sëriñ Basiru Ahmadu daf koy faj nga tàqali ko moom ci kàttanu yàlla yéen mbokki Touba ak li ko wër moom sëriñ Basiru Ahmadu mi ngi nekk fii ci Touba Ndaamaatu ci tablo Cheikh Wade wala nga ñëw ba Ndaamaatu laajte daare biir kër Serigne Bassirou Ahmadou ñu joxoñ la ko wala nga jokkook moom ci 76 699 45 41 76 699 45 41 wala 77 125 40 81 77 125 40 81 ak Serigne Bassirou Ahmadou képp ku jëflanteeg moom sa jàngoro tàqalikook yow ba faw ci kàttanu yàlla. del déglu del xool. information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar